Euh, dal leen ak jàmm dalati leen ak jàmm ni ki tey nag mën nañ mu nekkoon bés bu nga xam ne rek bés bu metti lool la ci ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di sénégalais yi euh, gannaaw nag trir ki nga xam ne rek moom moo di Mama Diaga ñu amal nag li nga xam ne rek moom moo di levée du corps ba mën nañ ne ni ki tey ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di artistes yi rawatina nag ñi nga xam ne rek ñoom ñooy jege jege ñaale ki nga xam ne rek moom moo di Wally Balago Seck euh, famille Thione Seck bépp rek daal di teew ñu daal say jot a nemmeeku ñi nga xam ne rek ñoom ñooy ay doomi aadama yu takkoo takkoo takku uh, ku ci mel ni Bouba Ndour moom it gis nañ ko ki nga xam ne moom moo di Youssou Ndour gannaaw nag ñoom ñaar rek ba ñu daal di jébbal li nga xam ne rek moom moo di seenum jaal uh, ci famille yi nga xam ne rek ñoom ñoo daal di ñàkk lii di seen bakkan muy kii di Mama Diaga mën nañ ne kat gis nañ fa sax ki nga xam ne rek moom moo di Serigne Mara Niass Oustaz Modou Fall mi nga xam ne rek daal di nay jot def li nga xam ne rek moom moo di am jaalam mën nañ nag mu nekkoon mbooloo moo xam ne rek mbooloo mu takkoo takkoo takkoo takku la tax nag niki tey mën nañu réseaux sociaux yëpp rek dal si xëyandoo nekk tiis la ak naqar woo xam ne rek askanu sunu gaal daal dinañ koy am mën nañu depuis semaine bi yëpp rek loole kat xewoon niki tey gannaaw ba ñu amee levée du corps ba foofu lay ca armée du Yoff mbir mi ni mel nag mën nañu daal di jot a xew niki 17 heures di leen di jaajëfal ci ñi nga xam ne rek ñu ngi ñuy topp